may mun a uh, accident bi agression bi mi ngi am trois am yow rek yaa nekkoon ko nekk jigéen uh, question bi ma njëkk a am posé la mooy fan nga jóge woon fan nga doon ak lan moo tax nga doon topp heure boobu alors euh, MNF une heure du matin lay euh, lay lay lay jeex euh, ñi nga xam ne ce sont des des des fidèles de l'émission tàmm nañu ko euh, donc dama nekkoon dama invité woon Farba Ngom je pense que euh, l'émission a été bien relayée donc bi ma paree l'émission avec Farba vers une heure et demie toog naa fii parce que souvent su ma paree émission MNF Euh, puisque damay guddee damay préparer la journée du lendemain et, donc ce qui fait même que beaucoup de responsables euh, ñoom aussi dañuy guddee comme man donc bu ñu paree euh, on fait un briefing j'organise les choses voilà anticiper euh, sur la journée du lendemain li ñu war a dénkaane li ma war a dénkaane ma dénkaane ko li ma war a deflu ma deflu ko parce que le lendemain mën naa ñëwaat fii heures mun naa fi ñëwaat midi wala mun naa fi ñëw huit heures bu fekkee ne euh, am na obligation ñëw fi donc je préfère prendre une avance sur la journée donc ñu ñu nekk fii j'étais avec euh, deux trois collaborateurs on a parlé on a organisé la journée du lendemain je pense même qu'on avait même parlé de la présidentielle donc ba ay trois heures ma taal sama oto dem di dem di ñibbi comme d'habitude euh, depuis cinq ans Euh, ma démarré l'activité de cette TV noonu lay noonu lay fonctionner Euh, le matin je suis dans mes activités administratives euh, journalistiques euh, le soir je fais mes émissions et puis j'organise ma journée je, je donc maa ngi fi jóge ay trois heures quinze je pense euh, d'ici pour à, pour arriver chez moi euh, fii ak sama kër 5 la fi ma dëkk sorewul et donc comme d'habitude et comme tous les jours wàcc naa euh, voilà y avait léegi voilà euh, j'ai pris ma ma voiture suis parti. du mhm. taxaw foofu ma laaj. Euh, donc nga jël sa oto nga dawal ba àgg ci sa buntu kër. sa buntu kër am na agent de sécurité ku koy gàdde wala amu ko. yegguma sama sama buntu kër xam nga en deux mille vingt et bi réew mi commencé jax commencé tàng euh, insécurité bi bari euh, les menaces bari euh, man dama def des travaux euh, chez moi euh, pour mieux ma sécuriser donc chaque fois su ma jóge waan fii heure bu mun ta doon damay dem ñibbi tranquillement chez moi mosuma di gaare ci biti il est arrivé nag semaine boobu Euh, que ñu entreprendre des travaux de pavage euh, fi nga xam ne moom mooy suñu koñ donc euh, ñu toj ñu tëj koñ bi génne oto yëpp benn oto mënatul gaare et donc pendant presque dix jours mënatuma gaare sama sama sama biir kër comme ni ma ko daan defee dama daan ñëw dugg ci garage bi duggu gaare donc j'étais en sécurité et puis il un agent de sécurité chez moi mais mënatuma woon gaare donc su ma ñëwee fan yooyu et souvent man maay presque man maay mujjee ñëw ci koñ bi su ma ñëwee damay wut fu ma gaare et donc je me suis garée à 50 mètres euh, près de près de chez mois euh, et pendant 10 jours c'est ce que j'ai fait damay ñëw ma gaare et ma dox ma ma ma dugg sama kër et puis je je je je y de sécurité ci buntu kër gi Maimouna ki la agressé daf la agressé fekk ngay wàcc ci oto bi wala daf la agressé fekk nga wàcc oto bi di dox ba nga àgg sa buntu en fait dama fi ma doon am euh, pendant dix jours yooyu yëpp am na espace boo xam ne falaa daan gaare donc ñëw naa comme je le fais euh, ma ñëw gaare euh, jël sama saak teg tijji portière yi commencé jël bagage yi ci oto bi puisque je me gare dehors bëgguma woon bàyyi ay bagage ci oto bi donc def naa deux minutes Euh, ci oto bi di defar samay bagage et puis j'étais au, au, téléphone en même temps donc euh, j'avais un petit sachet et puis j'avais mon mon mon sac euh, sur la main gauche et puis ma yor portable bi di dox dama dox vingt mètres euh, mu mel ni dama illusion la wala une vue de l'esprit euh, sur ma gauche dafa c'était très éclairé parce que man maa ngi doxee nii c'était moins éclairé mais sama gauche c'était très éclairé donc ma gis takkandeer takkandeer et ma seen nit kuy yoot ku def nii ma foog ne ndax damay waaw non dam nii laa def nii laa gis ma gis nit kuy yoot ku yëkkati di yoot di ma yoot yëkkati loxo ma foog ne ndax illusion la ma tourné jàkkaarlook moom mu xool ma ma xool ko après ma yuuxu daw ma yuuxu daw mu topp ma et puis puisque j'étais en boubou wolof j'étais en talon j'étais pas très efficace et au bout de 30 mètres mu mu jàpp ma un peu boo passé sama sama sama sama sama koñ et donc foofu la ma plaqué au au au sol et lii am yëpp foofu la amee. mais ki la agressé góor la jigéen la. ki ma agressé góor la euh, moo ma sut. Euh, moo ma ëpp tuuti euh, moo ma sut moo ma ëpp euh, le souvenir que j'en ai il est c'est c'est sec donc bi ma mënuma woon mënoon naa dugg sama koñ mais puisque dañ baare koñ bi ak ay xeer may ragala a daanu ma ne xëy na su ma yuuxoo sama vigile bi dina ma dégg et puis y un autre vigile ci kanam may am espoir xëy na su ma yuuxoo jubal foofu dina waa ji di nit dina génn mu mu daw et puis euh, kenn génnul il m'a plaqué au sol euh, may dem avant mu may may plaqué avant mu may plaqué il a essayé de me rattraper après quand il m'a rattrapé il m'a plaqué au sol may débattre euh, parce que boobu je m'imaginais euh, maa ngi doon ragal lu bëree bari bari ma débattre il me plaque encore may débattre à la quatrième fois nag quand il m'a plaqué ci la plaqué li nga xam ne moom mooy sama bopp et c'est là où j'ai perdu tout euh, tous mes moyens et à partir de ce moment là euh, yëgatuma sama yaram bi yëpp tàng na mu ngi jam man yëgatuma yëguma yëguma jam bi ni ma ko waroon yëgee bu fekkoon ne ci temps normal laa ne j'ai senti mu jam benn yoon et puis j'ai protégé le sac que j'avais ci sama ak sama thorax donc ni ma def sama loxo bi nii moo tax nag mu mu jam loxo bi et puis euh, ni ñu doon xëccoowee sama loxo yëpp mu mu mu mu dagg ko. kon daal Maimouna ki la agressé ñëwuloon pour jël saak maanaam jam bi moo ko gënoon a ëppal solo jël saak bi maanaam est-ce que ku ñëwoon la pour jël sa saak ak jël sa portable walla dafa koo xam ne dafa ñëw. laaj la sa saak wala sa portable nga bañ wala dafa ñëw rek jam la sans laaj la dara. non nit ki da doon yoot bi ma bi may dem dafa njëkk a yoot xëy na su ma ko gisul woon euh, dina ma jam te du ma am temps wu réagir alors bi ma plaqué euh, peut-être qu'il voulait avoir libre accès ci sama yaram et loolu moo tax ma doon débattre par instinct euh, de de de survie en aucun moment le na m'a pas parlé. Euh, plaqué na ma plaqué plaqué euh, et puis plaqué sama bopp bi euh, foofu nag laa perdre samay moyen après ci la jam trois coups de trois coups de couteau okay. donc jam na ma fii mooy cicatrice bii ma ma yor fii dagg na ma fii jam na ma fii et puis loxo yeneen yi ay griffure paaka bi et à la fin bi mu demee ba pare et pendant tout ce temps là maa ngi yuuxu amul une seule personne bu génn j'ai crié de toutes mes forces dama yuuxu tout en espérant que nit dina ko fa fekk bi mu demee ba pare nag boobu nag euh, voilà mënatuma dara mu ne ma dox et puis jox ma saag bi mais j'avais mon portable il m'a il a pas pris portable et ki ma doon waxal mon interlocuteur là euh, mu ngi woon en ligne lui il a assisté euh, à toute la scène en en en en direct après man tamit ma tàllal sama loxo jox ko saag bi et puis il est il est il parti euh, jóg naa boobu xamuma ndax moom jam na ma man yëguma xamu rendre gu ma compte maa ngi maa ngi sañe xamaguma ndax moom jam na ma donc bi ma jógee ma ma bëgg a jël portable bi pour filmer mais boobu sama loxo yi mënatul woon def dara mënatuma woon manipuler portable et j'ai continué à crier pour que nit ñi ñëw donc le gars il a, il est descendu et puis il a disparu euh, entre les entre les entre les deux collines euh, il m'a rien pris et j'avais mon portable euh, bu ma defee émission ba pare les bijoux yu may sol j'avais des bijoux euh, le le sac là il l'a amené euh, contrairement <laughs> à ce qui est dit il y avait un montant de 1 million bu ma waroon bàyyil Euh, qui est en charge euh, des dépenses administratives des dépenses de production euh, le montant là dem naa ba di ko bàyyil vigile bi euh, ma ne xaaral ma yóbbu ko sama kër euh, comme ça le matin euh, comme el le fait souvent quand je dois lui donner de l'argent moom mu ñëw jël si ko foofu pour exécuter des dépenses il y avait un montant de un million trois cent est que est-ce que ki yóbbu saak bi bi bi ngeen di gisaat saak bi jël na xaalis bi. waaw jël na jël na xaalis bi. et puis euh, jël na xaalis bi et puis euh, mu ñëwaat sac bi foofu lañ ko fekk intact euh, mes pièces y avait tout là-dedans ci ci suufu oto bi mais bi mu ma jamee ba yóbbu man xool naa ko mu wàcc montagne bi traversé corniche bi yéeg beneen montagne bi il le sac j'ai même été étonnée euh, le le lendemain quand on m'a dit qu'on a retrouvé le le le sac Euh, ci li nga xam ne moom mooy sama wetu oto. mais may mun a yow mi dund liñ la def rek yaa mën a xam ba xam ki ñëw ci yow ray la la jël sa alal yow mi dund yëf yi parce que nag xam nga kenn du nettali géntu sa kenn du sa géntu mi dund yëf yi rek mën a xam ba kii dafa ñëwoon pour ray la wala kii dafa ñëwoon pour sàcc. non Euh, le gars bu doon dafa ñëw pour sàcc j'ai fait deux minutes il est trois heures trente du matin j'étais toute seule et c'est après que je réalise que bi ma nekkee ci oto bi di gaare di defar sama oto lui il était la mu ngi woon laxaw ci ginnaaw oto yi di ma di ma xaar su fekkoon dafa bëgg a jël sama alal j'avais moom portable je parlais au téléphone j'avais le sac il m'aurait dit jox ma su ma su ma laajee sac bi ma jox ko lu ma laaj dama ko koy jox parce que loolu lu ma intégré la je disais souvent man moom agresseur doo ma rey loo ma laaj su ma ko yoree dama la koy jox mais il m'a pas demandé et la a voulu me par derrière et parfois damay xalaat s'il m'avait poignardé par derrière euh, lan moo naroon na xew après boo soxlaa alalu nit euh, doo ko dóor ba mu ba mu sonn euh, nga nga jam <laughs> après nga doog a nga doog a nga doog a récupérer nga doog a récupérer sac et puis le sac là euh, xamoo lu ci nekk peut-être que xamoo sax valeur u euh, li li ma yor yoroon naa loo xam ne j'avais des une montre en or elle n'a jamais disparu elle était avec moi on l'a enlevée quand j'étais à l'hôpital euh, j'avais des bijoux en or j'avais une chaîne j'avais des bagues euh, j'avais mon portable euh, il a pas pris mon portable euh, il a pas pris la montre est-ce que est-ce que bi agression bi de agression bi de am lépp moom am na lu mu wax wala moom waxul. non moom bi euh, à la fin rek la ma ne deux mots à la fin la ma ne et puis jox ma saag bi man ma def nii ma jox ko saag bi après mu dem mu wàcc dem. d'accord.